barke borom Tuuba asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di di leen baal ak kàddu bi di bàyyi ko fii ci daara waaw sport fii nekk fii ci daara Xuddoos xam ngeen ne tey jii doon bu jëkk waajal nag guddi gu tedd nga xam ne ñu ko jot ko daan bàyyi suñu amee sept mille ci daara ji jamono yi nag ku nekk xam na nag jamono yi li nga xam ne nii moo nekk mbégte murit yëpp muy Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général bi mooy yàlla na fi yàgg lool te wér ginnaaw bi mu joxee ndigal loolu ñaari mbooloo yi nga xam ne nii ñoo amoon benn pas-pas amoon génn yéene muy liggéeyal Serigne Touba Cheikh Khadim ñu àndal nekk benn boobaak léegi nag mbégte mi ak yéene ji ak jëf ji ñoom ñëpp ñu ci àndandoo tey ji nag suñu mbokki taalibe yi nga xam ne ni ñoo féete fële ci daara ji ci Touba HLM ñoo war a ñëw fii ci Hizbut Tarqiyyah ci kër gi nekk ci Daarul Xuddoos ngir nag fësal ndigal loolu jëfe ko ci jàng xasaayid jàng alxuraan ak saafonte loolu nag tax na nag fii ci daara ji booba ak léegi nag ñu ngi koy waajale ci anam yu nekk jamono yi ñuy wax ak yéen xam ngeen ne fii nga xam ne moo di biir daara ji mbokki taalibe yi ñëw nañ euh, toog ci ay sàppe yu am solo muy te loolu yor seen jikkoy alxuraan karim ak seen jikkoy xasaayid yor seeni i kurus di sant suñu borom ci mbégte mi nga xam ne nii suñu borom defal na ko lépp nag day daal di dellusiwaat rek ci ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg loolu te wér moom mi nga xam ne nii moo moom lépp xam lépp ginnaaw bi ñu joxee ndigal ñi nga xam ne nii moo di bokki taalibe yi boole lépp muy benn loolu nag jëwriñ ñaari mbooloo yi ñu ci